au moins là mon parlement bi la nouveauté parlement est et représentant peuple bi yow noo mën respecter président du parlement de la cdao respecté au premier vice président de l'assemblée du Sénégal man premier vice président de l'assemblée assemblée Sénégal ci architecture bi nga xam ne mooy bu état kon kay faut nga war a waxee man maay président chambre de commerce Bel 13 ans ñu fal ma falaat ma loolu moom ngay jëkk a wax ba mais booy laajtee dañu naan loo joteeg Sonko mais waroo maa wax war na maa wax Sonko lu ne laa ko mën a wax parce que Sonko du nit la te nee na am na xam-xam nee na it inspecteur des impôts la nee na euh, ci ñi gën a jub ci Sénégal la bokk am sañ-sañ moom toog ko mat bàyyi Sonko man mat naa ko bàyyi ndax sama doom ñaar taaw ñaari at la ko mage maa 64 ans mu toog. sénégalais yi respect bi ñu am ci man ba fal ma falaat ma quatre législature xam ne quatre-vingt-dix-huit bi may falu commencé bul liggéey sama premier mandat député ma falu falooti CEDEAO ma bokk ci ñi fa ñi fa def record quatre législature trois ans ma nekk troisième vice président parlement bi ma yor ko ba benn at moo ma dese ñépp ni la ma fa def kenn mus koo def nga toog ni sénégalais yi Moustapha Cissé euh, planton sax waru koo doon assemblée baayam moo wërta nekk planton Sonko duma moroomum baayam moo tax ma ne loolu laa wax bu dee loolu mooy saaga wi kay moom laa wax Sonko du dara laa wax imbécile la dana respecté mag ñam fi fekk doy pour mu saaga chef d'état yépp sangor ku ko mën saga ak limu mu pour ñun li mu defal Sénégal xex ko ci indépendance xex ko ci panafricanisme xam ne CEDEAO gi ñuy wax ak Union africaine yépp ci ñu ko sos la ñépp def ko am modèle ab référence nga di ñoo ñépp dañ leen a waroon a rey ak dañ leen a waroon a fusiller loolu Sonko bu ko defee lu ma ko wax xeet naa ko damaa respecté Sénégalais yi waaye kon la ma koy wax dina gën a garaaw loolu loolu laa bëgg ngeen xam ko Sonko aw mopp ci moom benn respect nouvelle actu génnee na li ma wax maa ko enregistré dagg ko def ko ci biir boo demee da ko gis li ma waxoon maa ko persister signé ko benn Sénégalais mënu wax ni ma awma sañ-sañ wax Sonko li ma ko wax ndax Sonko bu amee sañ-sañu saaga ay baayam saaga ay maamam saaga Sénégal ba pare gëmul diine ba pare it bokk ci sàcc yi gën a rëy parce que ñi mu àndal jàpp nañ tey bu njaay moo ko daan jëlosaak tey bu mu ko doon atte wane nañ ko woo comme complice ñoom suuf Ndakaaru sëpp 2001 bi mu commencé liggéey lañ ko commencé coxat-caxatee te foofa la nekkoon loolu na ci bind ngeen naan ko na bind ci suuf si mooy bande bi ci wetu euh, aéroport bi sacré kër 3 boobu laaj ko kër góor gi laaj ko mur bi nga xam ne mooy muru CICES euh, laaj ko muru aéroport bi loolu ngeen koy laaj suuf soosu nu ñu ko daggee ak euh, monument de la renaissance laaj leen ko loolu beneen bi ngeen laaj ko soldam ñaata la soldam ba mu mën a amub immeuble te fukki at ak juróom rek liggéey laaj ko it li muy financé parti am fu mu jógee Sonko loolu la war a tontu il n'a qu'à vous répondre sur ça mais yi muy wax kenn gëmu ko kenn faalewu ko te it bu ñu demee élection ci lay xam ne du dara te mënul dara loolu mooy dëgg gi man sëñ bi aw ma problème boobu nit ñi lu leen neex nañu wax bu dee wax naa kenn lu ma ko war a wax yoon a ngi fi man dem ci yoon mais lu ma wax maa ko wax e je persiste et Sonko fan la teg di toog di cuursal nit ñi naan diw sàcc na 94 milliards te boo ko woo du wax fu mu ko jëlee lu ko neex wax nit ñi ngeen defe ne daal mën nañ koo defal ay promotion leen ñuy ay carte électeur ñun ñoo yor suñuy carte xam nañ kuñ koy may man ñaanuma nekk président Sénégal moom ni ko ñaan nag ba pare di fen ak man maa koy wax ni li wax du dëgg tu es un menteur sénégalais yi gëmuñu la li ngay wax di du waxi dara